li mu bëgg li ñu bëgg mu jur nag mooy benn avant projet convention mun a jublu ci convention bu bees parce que bi fi nekk dafa yàgg ñu gis convention yoo xam ne avant indépendance la ba léegi mënuñu ko yeesal te euh, jumtukaayu liggéey yi dafa dafa changé léegi tey gis ngeen télétravail bi est-ce que secteur de mines mën na am boobu boobu système de travail est-ce que par exemple liggéeykat yi ñu ngi ci ay conditions de santé yu baax est-ce que employeurs yi ñu ngi respecter aussi yenn conditions yi pour liggéey loo liggéeykat yi ci bërëb ci mine donc mine dafa am risque. donc yeneen waxtaan yi nga xam ne nan lañ ko waxtaanee mooy liggéeykat yi nekk ci presque seen conditions condition de travail yi loolu tamit dafa laaj mu waxtaanee ko parce que état dafa nar a protéger liggéeykat defe naa président li mu ci jublu sax lool la mais. waxtaan après mujj gi waxtaan bi yàgg ci affaire u impôt mais du affaire u impôt rek lañu nar a waxtaanee presse bi bu naree def dialogue ak gouvernement dañuy waxtaanee lépp loo xam ne moo moo nekk ci presse bi ñi nga xam ne ñoo ci liggéey employeurs yi seen ay obligation loo xam ne wees na sax impôt ak aussi naka la ñuy def pour pérenniser euh, structure yi nga xam ne moo fi nekk